ay ca jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di jaajëfal di amati mbégte a contentement di jàkkaarloog yéen ñu ngi jëm le mais mai journée Ndiaye production Fallou Ndiaye ku ne xam na ne Fallou Ndiaye ay événement am yëpp ay neex macha allah mu tëgg combat ba nga xamante ne bii amateur yëpp ñu ngi koy xaar di ko bàyyi xel diggante Diop 2 ak ki nga xamante ne bii mooy si bu ngoro waaye yeneen xele ya war a laale ca biir moo dàq grand combat ba fis de Serigne Ndiaye mi ma toogal war na cee bëre ak ki nga xamante ne bii mooy Zenga bu Malika. ñu seet si fils de Serigne Ndiaye fas yéene waxtaan ak moom ci wàccaayu komba bi gaynde maa ngi lay nuyu. Mbaye Babacar ñu ngi lay fay yox onze billah bismillah ina wala yàlla jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonente bi di sant suñu ñaari waajur di sant suñu waa dëkk waa Mekhay Lambaay ñu leen sant bu baax a baax di leen nuyu di bëgg waa ASC bi ASC jaamu di nuyuwaat sama waa dëkk encore waa Mekhay waa Njogopeen maa leen nuyu bu baax a baax di nuyu waa mbër yi mbëri saapoleeg mbëri daaru mbëri aale maa leen nuyu ñëpp di nuyu turum poleeg bi daal di nuyu waa grand tamit ki ma dëkk maa leen nuyu bu baax a baax di leen ziar waaw. le 19 ñëw na de. waaw est-ce na mais ñun pare nañ. waaw. adversaire bi nga jël. ci na xale nekk ci ah, même lu mu doon doon xale ñun moo ñu mag. waaw loolu jaaxaluñu. mais moom nanguwul na mag la de. waaw loolu du problème. laamu sax amul mag loolu du problème waaw mooy lool mais ñun daal. ñu mën a bëree mën a xeex am doole wóolu bopp. ñun loolu ñu écurie Rebeuss am na bu ne loolu du suñ problème quoi ay bëree xeex ak yooyu noonu non ñun sursi rek la ñuy xaar incha allah. Hmm? loolu moo ñu amal importance quoi. jamono bi maa ngi la fekk nga sol sa abaya di féexlu yaram bi lu muy laaj. waa lamb rek lamb lay laa rek fi mu ne damaa yaakamti jot quoi. barke maam am Fall. bu arbitre suuf la génn seen diggante. loolu rek laa yaakamti ma dagg jéng mais li nga waroon a def ci côté entraînement côté mystique lépp def ko. instant yi pare na man bu doon suba suba moom man instant yi damaa yaakamti jour si laa la wax. bilaay wallaay damaa yaakamti dimanche jot ba ma tàggali ko moom dem. xool est nga Zenga bu baax. mel ngi bëri mbër moo xam. non man li ma ko waxoon keroog si ñaari rek laa lay waxaat xam ko damay sonal. amul sens quoi. xam nga booy bëreek moom xam ko di jàpp ne lii la foo rek yooyu danga koy bàyyi xel te man aw temps mooy bàyyi xel mbër man jour ba ma jotee bu ñëwee li ma liggéey rek laa xool loolu laa exploité dam xooli leneen. lan nga bëgg Zenga andi xeex bëre taxaw dëggal boppam. lu mu indi baax na lu mu indi waaw bu ñëwee fekk ma ca muy bëre muy xeex lu mu indi baax na moom la ñëw taxaw rek man maay def moom lu mu indee du feeñ ndax man maay def lépp. contraire bi la wax nag moom nee na yow taxaw ñëw yow ñëw fecc bàkku. bégal say supporters lu ko weesu amoo ko ci combat. moom nee ko ma dem xooli samay combat man arbitre mu sa suuf li ma taxaw di xaar adversaire heure bu arbitre suuf la damay dagg jéeng dem def ma fa war man daa am ñuy topp sama ginnaaw te daa am ñuy xaar ci man ñun daa am bu ñuy xaar chaque jour maa ci làmb fii ñu nekk di bëre du suñ place. Hmm, loolu moo tax waaw yow man gannaaw ko man mu gannaaw ko maa bi laa war a bëreel ñoo ñooy sama adversaire ci taay ci lépp. ñooñ ñooy samay adversaire ci taa ci lépp kon moo waree bëreeg ñii rek nekk fi di am lu xalaat wala may bàyyi xel rek kon ñi xam ne doo tëdd ba digg guddi mu lay travailler nga koy xalaat bàyyi ma ko xel sax par sin bamba xam nga lii am na mbër yoo xam boo doon ñëw doo leen fekk sax fii da nga leen fekk seen kër ñu tëdd di kii ak yooyu man fii nga ma fekk nii sama bérébu liggéeyukaay fii laa xëy ñëw toog di soulagé waaw fii laay joobee di cat ba cat tapissé yeeg matelassé yeeg gaa yëpp ak sol ko rek ngeen aay. tapissé waaw tapissé waaw. Euh, bu normal bu ñëwee bu ñëwee ma dóoral ko lu mool loo xam boo ko gisee da foog ne extérieur la jóge kon yow ci mbër yi nga xamante ne bii amuñu métier. non mbër yi naan làmb mooy sama métier. non man non man làmb du sama métier de maa ngi sama métier làmb nag waaw mooy loolu am naa si yaakaar quoi mais du sama métier. waaw pas làmb hors de bu passé damay xëy dem liggéeyi mooy loolu fi ne su bëree dimanche lundi. damay xëy si damay xëy si ñëw liggéey ndax ñun waaw ay responsable ko quoi dëkk ba lañ jóge orel lañ dugg bi ñuy ñëw te dañoo bëgg mu ñuy dem tamit mooy loolu bentoo ñu yóbbu oto incha allah. Mhm. yàlla na ko yàlla mottali mais ñu des ci le 19 bi ba léegi sa adversaire di mbërë ma nga xamante ne bii wax naa la ko sànq xeex bi bëre bi ñoo bokk ndey ak baay buy bëre mi ngi xeex buy xeex mi ngi bëre. mais xanaa déggul ma la wax bu suurisee du bëre du xeex lépp maa koy def waaw du bëre man su ma fas njël laa tuuru waruma. waaw kon jeex na wax naa ko keroog koo war a teg fu ñëw jeex na tàkk li yaakaar ci man moo bari kon man waaw daanu waruma quoi. Mhm. mën nañu xaar nga taxaw dëggal sa bopp xeex ak moom. lépp laa la kay loo xalaat ci jour bi rek Pokola Liss Ndiago bu ko neexee bii moo koy gën a tàng. barke maam combat de l'année baa ngi noonu. mais combat am. dégg wax bu dëggalee boobam laa la wax Pokola Liss Ndiago suñ combat ma ak moom moo koy raw. lu leer laa la wax. yow ak Zenga. Barke Serigne bu dëggalee boppam rek. non Zenga moom ba ma xamee ba léegi du muy arrière. Ah, kon loolu kon loolu day neex te gaaw ndax man moom arbitre bu suuf lee tee ma dem ci kawam lu leer laa la wax nag. nga ci kaw Zenga. bu la neexee laa la lii dagg ko denc arbitre bu suuf lee laa la moo tee ma dem ci kaw Zenga. image kay ngi fi te lënd am na. jeex na tàkk arbitre bu suuf lee moo tee ma daw ci kawam. nga dox ci kawam. duma ko daan ko lu leer laa la moom lu mu waaj dewul waajal ak say mbokk nga ñëw loo waaj dewul arbitre suuf la moo la fa bàyyi lu leer laa ko wax. fils de Serigne sa bopp un grand champion li nekkoon ci moom mi ngi ci yow. ay kooku di suñ papa nga ne mooy loolu lool loolu waxatuñ ko. gaynde du jur muus. Hmm, jox na tàkk gaynde du jur muus bari seen bamba moom champion la woon jàmbaar la woon. voilà kon ñun buñ buñ juree rek man la suñu waay mooy loolu. boo amee combat da ngay dem ci moom. ah bien man bu combat suñu ma koy wax nii sax dama koy woo balaa dara xew. waaw moom après mooy loolu dañuy ñaax yaa ma gën a xam nañu jël leen daa am lu mu ñuy faral di wax nag à chaque fois te chaque jour dañ koy demee ci làmb. làmb kenn moomu ko. bu arbitre soufflé suñ la mayee jëlal suñ la mayul foo xar jël dem jëli. Ah. waaw te ñun loolu la ñuy doxee à chaque fois. paa bi conseil boobu la lay jox. waaw boo conseil boobu la ñuy jox. la mayee jëlal bu la mayul demal tibb ak sa sa doole jëli waaw ñun ci loolu la ñuy dox à chaque fois di nuyuwaale passage vite fait suñ doom yaay suñ xarit waaw suñ seex kooku sama simon la waaw di ko ñaanal combat bi mu jóg yàlla suñu borom defal ko ci ndam lu sedd guy moog dab daan. mais mais mais euh, ki nga tuddee sa bopp mën a xeex gi nekkoon ci moom mi ngi ci yow. ah bien sûr. da doon dóor muy wàcc. ah bii nag séntu ci loolu nag ci combat bi maag Zenga nag dóor mu daanu bat seen baa ma séntu ko ci moom bu taxee boobam dëggal boobam rek ñu jaaga ba mu saf lu leer laa bu taxawee laa la wax dëggal boobam ma dóor ko mu daanu lu leer laa la kay fils ah, du dara dañoo doon ay ndaw di liggéey nekk ci écurie boo xam ne ay jeunes rek ñoo fa nekk muy écurie Rëbës waaw ñoom Cheikh Diaw nekk fa Balla Diop père Ibra Faye ah, ni ñu teg lu métti Talla Boyka léegi nag boo doonee ndaw entraîné ba wóolu sa bopp boo ñëwee ci biirub géew bul am looy xalaat ñëwal nga jëf li la war rek nga dem sa yoon quoi ñun ci loolu la ñuy dox hmm. mais waaw waaw lu leer laa la wax Babacar bis bi damaa ñor de parce que bi damaa ñor bis bi yéen ñëpp la ñor parce que Zenga fi mu toll nii bu ma ñoree benn jàppal ñor bu ko ñoree benn jàppal na na ma vingt lu laa la wax man ma la wax du du moom laa war a bëreel ñi war a bëre grand combat bi ak ñeneen ak ñeneen ñun laa war a bëreel. ma seetaan seen face à face mu ne la doo puus doo paas. Ah, loolu da nga koy bàyyi ba suur ba rek la la wax rek suur ba la fay neex maa koy def maay bëre maay xeex maay daan incha allah lu leer laa la tegal kay day neex ci journée bi yëpp man maa koy. mais sànq maa wax lu am solo da nga ma ne combat Liss Ndiago Pokola combat bii moo ko nar a dàq loolu nga wax fan nga ko teg. waa ci kaw li ma liggéey rek man maa pare quoi Babacar man pare naa bilaay walaay pare naa waaj naa bu baax a baax maa ngi samay Babacar pare naa de bar sin Tuubaa pare naa lu leer laa la wax pare naa de moom nag xaw ma waaw mooy lool mais man pare naa bu baax a baax bar Serigne Saliou pare naa de. Idi nee na pare woo de. ah mais Idi mooy loolu noonu Idi bu ko neexee wax loolu noonu Idi Idi la yor Idi caméra la yor de. damaa dégg damaa ko rond-point xaar mbay ma jaagalay xaar ba jamono neex. kii ne ko suba suuf njël laa. waaw këpp waruma tuuru waruma. waaw ah, jaaga rek lu tar lu neex dugal ma la wax moom mooy xool rek la ma ko waxoon keroog rek dama koy delloo di waxaat moom déggul xam naa ne wax caax naa ko loo xam ko mhm. nee naa ko jinne bu daan réer ñetti miskit ba xëy yem ci taalaal déggu du yomb moom dafa juum sama commencement combat bu fekkoon mi ngi ciy bëreeg man sax mooy lool. ok ok kon da bëgg a wax ne moom dalu ci. dalu ci xam nga ma doon dalu commencement combat yi ay fukk juróom lañu doon dajale. instant yi gars yi ay dix mille ak vingt mille la ñuy indi moom nag sibul lool noonu da ngay tëdd nelaw gis wéef bi ñu dugal la ci lu bari doole da ngay mën a entraîner ji nice mooy loolu lu leer laa ko wax moom dalu ci. jeune mara waaw mais la àndal jëndal mara. moo ko indi. ah so jëndal mara sëriñ yi muy andi mbër yi andi yëpp dañuy daan. mais jëndal mara duggul ci biir géew bi.

borom Bambey ñu ngi koy woo ci combat bi tamit moom mooy loolu dajee war a jàpp bu ci dajee war a jàpp bu ci dajee war a jàpp man Bambey laa dëkk waaw su ma déparé fii di ñibbi lu mu métti métti Bambey laa wàcc ci arab bi mooy lool maa moom waaw loolu ñoo ay dëkkandoo loolu force la dajiy jàpp incha allah. mais lu tax moom rek moom daal lu mu indi fekk fi lu ko gën a teg bu ndee xeex ma duma ko ma jàpp ko daan ah, seetaan si. barke Serigne Saliou day seetaan si la chose idi man ñi ma war a bëreel du ñii voilà chaque jour ma wax la ko ñi ma war a bëreel du ñii te saa bu ma ñëwee bëre ba pare nga xam ne ñi ma war a bëreel du ñii ñi ma war a bëreel damay ñëw jàpp mu jeex man damaa bëgg combat boo xam ne dañ naan tey ñu roy fils de Serigne Ndiaye barki alxuraanu ko dem ah, man reetaanu ma kenn non du cadre naaw xam na ma lool dama man li ma li ma liggéey laa man xale laa man ni moo war a toll sax tollagu ma ni na mooy loolu noonu ndax xam nga làmb daa am lu muy laaj làmb bu juree xam nga mooy loolu noonu mais ñun dañuy taaba taaba nekk ak fii mooy loolu noonu mais ñoom laa la wax lu axlu làmb dama leen xam lu ndaw kër ma demee ba des lu xëy entraîné ñëw tëdd ku ci cab fils de Serigne Ndiaye boobu nga xam ne cab nga musiba lu leer laa la wax bii mooy sama sixième combat cinquième cinq victoire ak bii di ñëw muy six kon ko. Ah, laal naa ko fee bu yàgg yow man Grand Yoff laa dëkk de lu leer laa la wax man Grand Yoff dëkk. waaw non moom ay mbir la moom nee na ñetti gox ñetti ko seeka man man Grand Yoff laa dëkk dama koy xamal loolu quoi waaw moom lu mu xalaat rek. waaw ñooñ ñooñ du cadre dañuy ñëw yokk sama doole ndax combat bi yeeg yooyu ñooñ deret lañ deret sang la quoi ñooñ loolu même bu bu ma fekkoon fii mooy for suuf sax dañuy sëgg problème ma lool force la quoi lool du cadre dañuy ñëw ak yooyu ñoom ba avant combat bi taxaw ba tey ñu ngi fi kon duñ fi jóg quoi hmm. ñooñ maa ñoom deret la quoi di ñaanal vite fait ndam. promoteur bi waaw sama mbokku Bawol Bawol rek ñu bokk dëkk Lambaye waaw mooy loolu c'est la première fois mu tëgg ma nag. mi ngi may soog a tëgg quoi. waaw mais dañuy ñaan yàlla mu continuer ñu tëgg ba 3 ren incha allah. côté mobilisation a xaar. waaw ñu ngi waaj bu baax a baax. jeudi la open press bi boo ñëwee Grand F di nga xam ne ñu ngi waaj bu baax a baax a baax waa Grand F ñu ngi waaj bu baax. promoteur mhm. mhm. bi li muy xaar ci yéen xam ngeen. xam nañ ko bu baax te incha allah nañ ko def bu neexee yàlla. Mhm. feesal stade bi la loolu du problème ñun li ñu seex ak moom bu soobee Serigne tuubaat nañ ko def. incha allah ay ca kàddu gu mujj gi ñu bàyyi la gu mujj gi mooy di sant rek li ma wax di sant waa Bawol Bawol Bawol yëpp maa leen di woo si combat bi fépp fu nekk rek paak yëpp maa leen di woo waa Buntu Pikine maa leen di woo bu baax a baax a baax waaw di woo waa Caaroy tamit sam yi nekk Caaroy mafia bi ñoom Fallou mu ndaw ah, ñoom Mbacke caayo maa ngi woo yooyu yëpp di leen woo si combat bu baax a baax a baax di woo tamit fii nga ma fekk nii muy waatu xujine asiko yi ñoom Saliou Bella Rima ñoom ñëpp maa leen di woo ci combat bi maa leen di woo bu baax a baax di woo waa Pàcc bi tamit sam booy nekk fii maa leen di woo bu baax a baax baax a baax waa Grand Yoff ñoom pare nañ. waaw waa Grand Yoff pare nañ non ñoom mooy lool pare nañ maa leen di woo ñu gën a waaw ñu gën a waaj xam naa ñu ngi waaj mais nañ gën a waaj luñ ñu waaj doyul maa leen di woo bu baax mafia zengulaan bi combat bi ñoom seen combat la te xam nañ ne seen combat la ñu ngi koy waaj. di woo waa Mekhay Lambaay sama waa dëkk waa ASC bi ASC jàmm maa leen di woo bu baax a baax a baax sama papa yi papa maam góor papa Ibou Diouf papa Abdou mu ndaw papa di Diouf comme ni ma la ko waxoon rek combat bi ba la ko biyee laal ci sas nga ñëw jàpp ci sama waa dëkk waa Ndiogo Penn sama dëkku nijaay man foofu laa yaroo maa leen woo bu baax a baax sama nijaay aw ma seen fay waaw ñoom lu ma nekk rek ñi ngi ci waa mbëri tamit comme noonu gazalika noonu bàyyi ñu ma ginnaaw benn yoon saa ma jógee ñu jóg mbëri sapolek ah mbëri daaru mbëri aale yaa ngi dégg cilmaxa maa leen di woo bu baax a baax waa ngoogam poléeg bi tund poléeg bi daal maa ngi woo ñëpp waa njaar ga mhm. su ma limee rek damay juum ñëpp non man bool boola laa cent pour cent maa leen di woo ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp ci waaw di woo tamit waa Grand Yoff autorité Grand Yoff ñu ñëw taxaw ñun Grand Yoff la ñuy représenté saa bu ñu jógee drapeau rouge blanc bi la ñuy yéegati ñu ngi leen di woo bu baax a baax ku ci mel ne Khalifa Sall maa lay woo bu baax baax tàngoora loolu sa loxo laa ko teg Xalifa Sall da see war a jàpp bu baax baax a a baax maa leen di woon ñëw jàpp ci tamit kulukum DG Créa Dior sama doom nday sama xarit maa ngi bu baax mu ñëw jàpp ci combat bi moom tamit mhm, di woo ñëpp deef tamit maa ngi ko mu ñëw jàpp ci doomu yaay kuli ak baay bas waaw maa leen di woo bu baax mafia bi mafia bi mafia def bi doomu yaay kuli ak baay bas maa leen di woo gaa yëpp ñu ñëw jàpp ci tamit mhm, di sant ñëpp di gërëm ñëpp daal ayca fils de Serigne Ndiaye mbokk yi rendez-vous incha allah le 19 mai fële ca arène nationale Ndiaye production Siteu bu Ngor Diop